di leen siyaar waxtaan wi du mën a gudd ndax li ci àjjuma lépp sëriñ Mountakha wax na te lay tënku ay waxam mooy taqwallahi bu sa xel nekk ci yàlla ngay kër ndax diggante arraja wal xawf noonu la ab jaam di jàpp sunu borom waaye ragal yàlla mooy bàyyi ko bàyyi xel yàlla ndax loo bàyyi xel rek say jëfa say nelaw say lekk sa jàpp ak sa bàyyi jëf sa xel day ne ci loolu moo tax bàyyi xel yàlla mooy taqwallah sharia bi itam sëriñ bi wax na ko waaye sama borom dafa séddale dafa wax na wa laqad aatayna bani israila alkitaba walxukma wannubuata wa razaqnahum min altayibat وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر بينات من الامر وحي نتبنا نقول ثم جعلناك على شريعه من الامر بينات من الامر موي ساهل ما تقصد يبقى بوك نيبال لي جيس اك لي خام اك نانكو يجنتي نيوم نيبا كو بوك لي ناخ بينات من الامر شريعه من الامر نا دا فا لم موتاخ الاسلام بري اي غير كين كو ني اك نانكو ديك sëriñ Tuubaa nag moom bi ñëwee wutul njërum boppam mboolem téere yi mu liggéey bu ngeen ko seetloo day wax ne diwa ko weesaroon man ma woy jawharul nafis fi aqdi nasril axbar mawaahibul qudus sanusi moo ko def nahju qadail xaj bal xaj moo ko defoon masalikul jinaan daymaan bi moo ko defoon bañ na ko sax ba nee na fa xaytuma zakartu sa qultu fa min maani qawlihim naqal loola la ko bàyyi ni ko fekkoon kon nag Sëriñ Tuubaa buñ ci dee wax moom mayam gi rek ci lañ mën a wax ndax lu mu fi mën a wax fekkoon na fi nit ñi di ko def te taxut ñu am dim am jàkka yaa ngi ci woon kaamil yaa ngi ci woon lépp a ngi ci woon ñu di ko jàng di ko mokkal di ci am na ñoo xam ne sax dañ daa naafila alxuraan ñaari rakka téerab kaw bi ab rakk la téerab bi ab waaye taxul kenn am ci lu jege li sëñ Tuubaa fa mu jaar duñ ko jéem a xam duñ ko jéem a roy danga koy bàyyi suñu bopp sëriñ Tuubaa bi fi bi mu nekkee ak bàyyam Mamour Anta Sali da doon jàng jafaru nafis bii ma wax Mamour Anta Sali jàngale na ko ci kanam waaye ak waajur a ko fa bawoon bi mu génnee àddina def ne ku fi jàng bàyyi woon wutal ku la jaay koo xam ne fi ma jëm nga jëm àndalal na kon nag looloo Sëriñ Tuuba daa am lu mu xam am lu mu gis am lu ko yàlla won loolu mooy rahmatullahi te waru la fadlullahi aleykum wa rahmatuhu dogal ko nag loolu kenn du jaamu lu yàlla nangu te bu la yàlla toppee du am ko kon Sëriñ Tuuba bi mu dikkee sañ-sañ la am boo xam ne sunu borom a ko ak may la am boo xam ne sunu borom moo ko jox sañ-sañ boobee nag kenn du xam kon ko jëlee may boobee faat na kenn dootu ko amati mi ngi mel na nga ñëw ci këru nit fekk moo am ay teraangaam ci biir këram togg ay ñamam bérébam baax lépp am fa loola moom dara warul la ci lu dul bàyyi koog sa bopp su fekkee bëgg ngaa jariñu ci ñam waaye soo bëggee xaalaa ci ak togg wala nga sosaat sa biir loola moom yaa ngi koy tàmbalee ci dem ba ci digg mën bi nga sos ko kër te ku beru kenn du la fekk kon ci tax lu waay am sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa moom dañu koo xoolee yàlla waaye jëppewuñ ko yàlla ndax lu nit dox dox xam ne yàlla amul moroom loolu shirkul jaahiliya yi ñoo daa wutal yàlla moroom dañoo dox waaye ñun weesu nañ foofu koo ne mooy yàlla la la jëkk kooka lu ko defaroon koole mooy yàlla gannaaw kooka lu ko doon kon xam na ni sëñ Tuubaa dañ koo xoolee yàlla nun ñi yi kenn jàppewuñu sëñ Tuubaa dañ noo xoolee sëñ Tuubaa waxtaan bi mooy taalibe yi am nun noonu dañ noo xoolee sëñ Tuubaa nan fexe ba li ñuy xoole nun niru ndax carte portele xoole ko borom na tax bu ko niru dañ doon ma ci sànni tubaab yi sax carte d'identité bu ma ci fukkee baaxatul ndax du dootu dootu nuru borom kon yàlla na sëñ Tuubaa dimbale ñu nuyu ko ne bëgguñu koo doon ndax kenn du ko doon kenn du ko rey gës koy topp bàyyi ko sa bopp yàlla na ci dimbali yéen taalibe yi itam te tabbiwaat nañ ci biir loolee ndax rawee nañ leen bokk ci sëñ Tuubaa waaye ay taalibe lañ de yéen nan fexe ba nga xam ne bu ñëwoon sëñ Tuubaa ngi ci néeg bii na mel rek noonu lay àgg ci moom تكتون أكو فت أكبسي أكو دم واي بوني ما تفروا يعني سبب كنا أكتر بيت أم سلام مام لني جاني يوم تسين كوبا لين لوم ما ندم لين لوم ما ندم بني وحنا بوا الآخرة ما سلككم في سكر وقت ونيجي بقوة وايد نوفتني du caggee ni ab jàmbur ak gis waa sawara naan leen masalakakum fii saqar sunu borom it du caggee ni mooy wax waa sawara naan leen masalakakum fii raq fii saqar alquran dane illa ashaabal yamin fii jannatin yatasaaluuna an il mujrimina naan leen masalakakum fii saqar ña ne àjjana ñoo koy wax noonu nag nooy ñoo ñeex kon noonu doonuñu ñoo xam ne dañ naan maa salakakum fi saqar ñu naan lam naku min al musallina wa lam naku nut'imu al miskina wa kunna naxuudu ma al xaa'ibina wa kunna nukadibu bi yawmi diin déedéet nun noo nekk ca ajana naan waa sawara maa salakakum fi saqar nun génn nañ ci waxtaan bi tey lam naku min al musallina lenn la ci li leen tax a dem sawara des na leneen wa lam naku nut'imu al miskina وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين لولو يالنا نتي يالا موسى لولو لين لا لولو لين لا واي جولي غوغو سونو بروم دال ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين لولو وي الذين هم عن صلاتهم ساهم بوي لي سجلنا فقط خل دم جي ادينا وكما لا يكن ويل مولا جي fekkal na ku mën a warlu ne dana julli ba sëlmal doo xalaat def na amul alladina hum yurauna booy julli te bëgg ku ne yow ni ku baax la wéyul moo la cay fekk wéyam naa am naan maa una booy julli te nay wéyul moo la cay fekk fuñ diglee julli ci alquran wa aqimu salata wa anfiqu moo ci topp wala wa atu zakat te danay digle ci alquran anfiqu te doo ànd ak dara kon julli aw sàkkat la bu amute xer du dem جوري اتو بأي خير لا دا نيو تاخاو بو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته